waaw léegi nag nit ñaa ngi fi équipe a ngi fi bu leen ma mayee déglu ma te wóolu ma ëllëg ku ma leen joxoñ jël leen ko te xam ne du leen wor du yàq seen dëkk te dina mën a gagné parce que moyen du ko jaaxal te duma ci génnee suma loxo bu dul loolu nag ngeen tas loolu lay bañ te tas bëgguma ko dama bëgg suba ngeen bañ a teg Umar Sy ci kanam wala bu leen tegee ci Umar si ci kanam yàlla dimbali leen comme ni ko ma ngay waxe ba Umar Sy nangu baax na waaye bu leen demee ba Umar siit fa mu taxaw mu taxaw fa waaye ni leen kii doy na ma te yëkkati naa nangam teg ci du ñu manqué xaalis te campagne ak lépp maa koy def te mosu leen koo gis mu jaay terrain ci yëfu caaxaan la mu yor ca mairie ba ba ko yore ba léegi day jëm kanam mais man nag iñaane wu ma iñaane wu su ma ndono iñaane suma ma ndono bu ma neexoon bu ma sañoon ki ñuy remplacer wala ki nga xam ne mooy nekk suñu candidat bu dul man ci yéen lay nekk ci biir benno bi ñu ñëw fekk si fii kër tonton Omar fii ci Mbour ne ko dañu am yéene jàppale ko ànd ak moom teg ambition ya ñu yoroon ca suuf topp ci gannaawam ngir yàlla ak yonent bi pour ñu tabax Mbour. man nag may doomu bado ba boo xam ne sama waajur loolu la ma digal may sant di gërëm sama pàpp Ousmane Maguette Diop mi nga xam ne boobu ba léegi moom moo waral lii am tey kon tey liñ fi wax Alioune lu leer nañ la. mbuur toll na foo xam ne nii soxla nañu tonton Omar mi ngi def naam lu am solo ci biir dëkk bi mais dañu soxla mu gën ñoo jàppale pour li nga xam ne dañ ko mbëbët ci projet de redressement pour ñu jubanti Mbour parce que Mbour c'est la deuxième ville économique du Sénégal loolu moom leer na ñëpp te am na loo xam ne gisaguñ ci suñu bopp. ñu gis aussi yaakaar bi président de la République am ci moom donc bu ñëwee fii ñun ñu ñaax ko ñaan ko ne ko dañoo bëgg ñu ànd topp ci sa gannaaw ñu liggéey Mbour mu wax ñu nag waxu gor waxu que ne. am na baat bu mu waxoon ne amatul benn ambition ci politique lu dul def ngir yàlla ak yonent bi ndaxte li muy def ñëpp seede nañu ne xaalisu boppam la yor di ci teral nit ñi di yóbbu nit ñi màkk di financé jigéen ñi di jàppale xale yi di jàppale mag ñi loxo mosul génn ci loolu kon mu ne ñu may ko mu waxtaan ak boppam xool jox ñu réponse loolu vraiment lu rafet la waaye ñun nga xam ne dañuy politique comme niñ ko waxee dinañ def tout pour que décision ba nekk décision boo xam ne moi bëgg ñun que ne bu jóg Mon mu ne alhamdulilahi rabbil alamin dina ànd ak yéen gunge leen langue politique banyone. Moi, muy majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar tënk ak allié yu bees yi ñëw président de la république bu ñu fofu foofu ah président ñun de bu ñu sañoon waa Mbour nañu président Omar Sy moom la ñuy jiital pour ñu jubanti mairie bi loolu mooy li ñuy mbëbët di nekk ci suñu biir xol dañu nekk nekk ci dynamique groupe bu ñu eggee ca loolu moom mu réfléchir mu ne ah man kat wax fa dëgg neex yàlla am ngeen kóolute ci man waaye man sama charge liggéey parce que wax na ko mayeetuma mu mun a dem dama bëgg ngeen topp ci gannaaw kii bu boobaayit it discipline ba dañ koy am ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaane ko ñu nangu ko defal ko la mu bëgg ci kàttanu yàlla. tonton Omar quand même je pense quand même que yàlla dëgg la bëgg man am naa ambition ndax dama sanc parti politique waaye terewul. keroog biñu ñëwé ci élection député dama top ci gannaaw Aïssata Tall Sall biñu ñëwé ci élection présidentielle dama top ci gannaaw Aïssata Tall Sall ci Sénégal té dama yor parti politique xam nga parti politique ken déful ko pour gungé, pour dem ci pouvoir ba la waaye na ma ko mën a defee gannaaw Aïssata Tall Sall nonu la ko défé tay ci sama gannaaw Papa Oumar Sy té Yalla dafa né boy def ngir Yalla ak yonente bi rek tax ngir Yalla ak yonente bi rek tax da ngay xol ka la gëna taxaw nga and ak mom yalla dimbali leen loolu moy générosité ci politique donc nekkuñu ci ben calcul pense que tonton Omar Tay, kuy politique fi bir Mbour kum ci ëppul ndomba tank kum ci ëppul ay nit ëppoo ko ci ay nit kon je pense ragalul ndaxte mom ay terangam du politique mom moy génne xalissam diko def ci politique kon tay bu taxawé je pense que ne bu fekkone ne mi ngi ci calcul yoy dina taxaw ne diw laay jappalé dafa né dafa joxe woon kàddu di gor yor liggéey bo xamné donc il faut mu tok jël temps nañ ci am bonne foi rek

ñun ñi ngi liggéey pour def benn coalition boo xam ne bu mag lay doon parti politique yi fi nekk tey ni ko tonton Maguette waxee muy noyau dur bi ñu liggéey pour indi le maximum de parti politique ba bu ñu eggee ci suñu biir coalition majorité présidentielle bu ñu nee kan la ñu war a mun a mu nekk coalition gagnante mais bu boobaa ñu taxaw ñu ne ñun tonton Omar Sy moo ñu doy moom la ñu wóolu te bu boobaa ñëpp dinañ ko nangu ndaxte ay chiffres wane nañ ko politique am wane na ko résultat yi mu def ci élection yi passé wane na ko ma wax léegi li ma waxoon am ñu bari ñu nek biir Mbour nek ay leader politique dañuy xamuñu luy politique dañuy jaawale riiru mbabor meeting caravane animation Facebook ak majorité électorale té lolu bu ngeen xolé élection yi passé ci biir Mbour wane na ko ndaxte 2017 ci élection député ya li nit ñi di bindu biir Mbour yëpp la coalition Benno Bokk yaakar amone ndawna ci élection présidentielle bi mu jogat président def 70 000 voix lolu moy amul won effet d'entraînement comme le président Omar Tay, avec les def ci politique trajectoire politique am dañu jàpp ne relation yi le président Macky ak aussi ci wàllu parce que les politique dafa avoir a am Le président Macky ci programme Ligue ëllëg bi plan Sénégal émergent phase 2 bi dafa ne logements sociaux lay def ci dëkk boo xam de am nga plus de fukki éligible ci programme boobu kooku dañu war a sant yàlla ba kooku ñu war koo mën a jël teg ko fa mbaxane fa fa fa ñuy décider ba bu ko defee bu programme boobu jogee mbuur teel cee gis boppam. mais lu tax Macky Sall waral lim benn nit non bu Macky Sall waroon a lim man jàpp naa ne danaan topp leen ci gannaaw Omar Sy man loolu laa gëm parce que Macky Sall nag élément nu politique la politique alin du rek ay waxi kese mënuñu jël koo xam ne nii mosoo falu. mosoo am mënoo indi benn expérience politique boo xam ne mën nga ko teg nga ne moom yow yaay jiite donc ñun li ñu wax dañu nekk ci majorité boo xam ne fii ci département bi dañu reconnaître autorité le ministre sama grand frère Oumar Youm mi nga xam ne moom mooy responsable majorité présidentielle fii ci département Mbour mais bu ñu ñëwee fii ci commune Mbour mais responsable yi nga xam ne nii tey bu tànn jotee ñu war leen a tànn mais ña lim bokkuñu ci ñu war war a war a tànn ki nga a député maire mouvement politique demoon na ci élection yi passé amna lu mu yor ci légitimité populaire mais ku mel nonou limuy def ci biir Mbour du lu leer du du dimbali nit ñi la nit ñi ñi ñi ndaw ñi mais ku mel je pense que le président Macky Sall woné nako man ma ngi

tal bi ñu nekkee yooyu yëpp dakk na tey tey moom li ma bëgg a wax waa Mbour ñu dégg ko mooy tonton Omar moom jóg na waa këram jóg nañ ay doomam jóg nañu ñu war a dugg biir mbuur wax ak waa mbuur pour ne leen nag dañoo bëgg a changer dëkk bi def fi lu baax def fi teraanga di ko dox di ko wax incha allah.